mu roy yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa yambagi ala al muslim al iqtidaau binnabiyi alayhi wa fa innahu huwa al uswa wal qudwa fukki fan yi jullit bi war na cee góorgóorlu kemtalaayal kàttanam jéem a xool naka la ko yonent bi doon taxawee mu taxawee noonu lan la ci yonent bi doon def mu def loolu ana yan xeeti jaami yàlla la ci yonent bi sallallahu alayhi sallam daan def mu royee ko ci moom yonent bi tout le temps dañ ko war a roy waxtu wu nekk dañ ko war a roy waaye dafa am ay waxtu yoo xam ne bu xewee ah yow sama mbokk jullit waaye waaye fexeel bu la yonent bi raw fexeel nga dëgër fexeel nga góor góorlu ci jaamu yàlla bul sànk waxtu yi bul sànk bëccëg yi waaye bul sànk guddi yi ndax xamoo koor gi di ñëwaat ndax dina la fi fekk kon profitool mbokk jullit yi ana kan ci ñun tey moo mën a waat ne weer wii déwén ci waxtu wii ci bis bii dina ko fi fekkaat kan ci ñun moo mën a yëkkati loxo ndey waat loolu maadaama du góor du jigéen du kenn ci ñun xamuloo déwén fu lay fekk yàlla may na la nga fekke lii nga la waay góor góorlul ndax bu fekkee ne yàlla dogal na sa génn àdduna sax nga yóbbaale ay yiw nga yóbbaale ay tiyaaba nga yóbbaale guddi goo xam ne jaamu ci yàlla moo gën junni guddi yonent bi de wax dëgg yàlla wàccoo na ak ñun yonent bi de jàngale na yonent bi leeral na kemtalaayal kàttanam wax na bàyyi fi jëf na bàyyi fi nun noo des int bi def na lu ne pour doomu aadama yi texe ëllëg dugg aljanna pour góor ñi texe pour jigéen ñi texe jàngale na waññi na soññ na nun nag nooy ni des ñun dey nooy ñi des ci sunu jaamu yàlla ñun de ñun ñooy ñu ko royul ñun de ñooy ñu ko toppul te yàlla nag moom dong la ñu joxooloo moom lañu ñu toppaloo moom day ci fukki fan yi da daan takku di julli di tudd yàlla di jàng alxuraan di saraxe moom lii moo doon taxawaayam ñun lan mooy suñu taxawaay dajale ay lekk dajale ay naan di puukare di wanewu di tëggi ay sabar di fecc ba fukki fan yi jeex duñ ci jële dara lu dul ay yaram yu metteeg coono ak alal bu ñu perte alal ji ñuy pasar pasaree ñuy pasar pasaree tey ci ay jàng ki ay xumb xumb ay laylatul qadr yoo xam ne teguwul fenn ci sunna ay fecc la ba guddi jeex di taasu ba guddi jeex di taaxuraan ba guddi gi jeex mbokk yi loolu du diine diine amul tànqalaate diina amul luy lor nit maa jaala aleykum fi diini min xaraj yàlla nee na diina ji teguma ci luy luy lor nit waaw takki ay rajo di yuuxu rekk ba guddi gi jeex di fecc ba guddi gi jeex di naan sàngara ba guddi gi jeex di tux yàmbaa ba guddi gi jeex di ko tuddee diine di ko tuddee laylatul qadr laylatul qadr weesu na loolu tu qadr jegewul loolu laylatul qadr nuróowul ak loolu leelatu qadr yonent bi ak sunu leelatul qadr dafa wuute ni asamaan ak suuf wuute nit ñi sorante eh, asamaan ak suuf noonu la sunuy leelatul qadr ak leelatul qadr yonent bi sorante delloo leen xel yi jaamu yàlla du li la li neex yàlla la jaamu yàlla du li nga foog li yonent bi indi la jaamu yàlla du li nga yaakaar waaye bal li yonent bi jàngale la sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yonent bi mas ta jàngale fecc mas jàngale taaxuraan mas jàngale ay tabala dig tëgg di yuux mas woote ay ndaje yonent bi diine la indi woon alquran ak sunna diine boobu mu indi woon fi mu tegu mooy ci alquran waxu yàlla sunna waxam ak jëfam kon nu góor góorgóorlu ku liggéey sa bopp nga liggéeyal kuy jëf sa bopp ngay jëfal jëfaloo kenn jëfaloo ma sàmm jëfaloo ma demb sa bopp ngay jëfal olof yi nag nee nañ ku noppi ndax sa bopp sa aajo faju nu góorlu doomu ndey nu góorgóorlu mbokk jullit yi na góor ñi góor góorgóorlu na jigéen ñi góor góorlu nañu delluwaat ci diine yàlla nañu delluwaat ci diina yàlla ndax kat yàgg yàgg yàgg dañuy fekk yàlla yàgg yàgg yàgg sunu dund day jeex te ko su dund a jeex nga dem ci yàlla yóbbaale woofa li yàlla digle woon dinga rëccu dinga nga ngëpp sa loxo suuf ñaari loxo yëpp bànk ko ba ndox génn ci ngay rëccu naan yaa layta ni kuntu turaaba ak a neexoon tey ma nekk suuf doomu aadama ni ko yàlla bindee mu ngëpp suuf di yuuxu naan ak a neexoon tey ma nekk suuf rëccoo ngokk te ku jaamul yàlla suba di nga ku taxawul ci santaane yàlla di nga réccu wallahi wallahi wallahi dama leen di giñal ci yàlla ku royul sayduna muhammad ku toppul ci ginnaaw yonent bi suba di nga réccu di nga màtt sa ñaari loxo ne yaa waylta yaa waylata laytani ittaxastu ma rasuli ko wax yàllaa ne ku jaarul ci ginnaaw yonent bi ëllëg nga réccu di nga màtt sa ñaari loxo kon nag balaa ñuy réccu doomu ndey ci guddi yu màgg yi guddi yu sell yi guddi yi nga xam ne guddi alquran la guddi yi nga xam ne guddik ay malaaka yuy wàcc jibril di leen jiite guddi goo xam ne jàmm doo nga ci nekk guddi goo xam ne taraanga moo ci nekk ak xiiwal loolu ab jullit buñ ko ko diggee war na ci góorgóorlu yàlla na yàlla sàmm yàlla na yàlla taxaw yàlla na yàlla aar yal yàlla may nu fekkee néegi ni déwén bépp jaamu yàlla bu nu def yal nañ ko yàlla nangul suñu tarxiisee yal nañ yàlla jéggal asalaamualeykum aleykum rahmatullahi wa barakaatu.